waaw salaamaaleykum maa ngi leen di fay bu baax a baax di kontaan ci certifié ma certifié ci sama salle de répétition euh, ñëw pour participer ci promotion événement bi euh, toute la presse sénégalaise maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di nuyu internet yi ñuy seetaan ak sénégalais yi fépp fu ñu nekk ci àdduna bi di leen jox seen wàcc waaye di ñaanal ñëpp jàmm. alors ñu gis événement bi mu am benn programme bu rëy bi nga xam ne ni euh, Sénégal yi bëri nañ si bàyyi xel rawatina maanaam nga def ko même si affiche sax moo siy feeñ muy lii di octobre rose pourquoi ce choix là. waaw li tax choix bi dafa am ay jeunes yu dëkk grande Dakar muy waa Bamou Vision nekk benn maison de production bu mag bu ma seet si proposé ma concept bi mu nekk concept bu ma neex parce que dañ maa woo ci sociale te ku ne artiste wax social ndax yoon la li ñu nit ñi di jox ñu delloo leen ko. ba ma proposé soirée octobre rose pour ñu def benn soirée pour rendre hommage bépp jigéen ak képp ko amee feebaru cancer euh, ma ànd ceeg moom muy soirée octobre rose nga xamante ni bu ñu paree ci soirée bi ba def suñuy dépense lépp lépp lu luñ ci am ci recette dañuy woo euh, presse bi yëpp ànd kook ñoom yóbbul ko may ko ñi nga xamante ni dañoo feebaru cancer loolu mooy concept événement bi loolu la ma proposé ma nangu cee ànd ak moom ndax feebaru cancer ci jigéen nekk na feebar boo xamante ni euh, war nañ cee def communication bu baax ndax mi ngi faagaagal jigéenu Sénégal am na ay autorités yu bëri yoo xamante ni ba ma leen seet see tegal leen concept bi dañ ma ni yàgg nga ñoo indil projet mais projet bii nga ñu indil bokk na ci projet yi ñu gën a ñor ndax feebaru cancer mi ngi def ravage ci jigéen yi yoon la nag ñu def ci communication pour ñi ko amul dem def dépistage fagaru ñi ko am faju te bu ko ñëpp euh, porté rek. yàlla dina ci def tawféex. Mm. alors lu tax euh, li tax ma nangu ko du dara lu dul ay artistes lañ te tamit fi sunu baat mën a egg bëri na amaana li keneen di wax duñ ko déglu bu ko artiste boo waxee ñu déglu ko te ñi nga xam ne ñoom la feebar bi dal ñooy sunu yaay di sunuy raq di sunuy jigéen ñooy ñëw ci sunuy soirée di ñëw sunuy événement parce que boo nee jigéen rek jigéen nga wax donc. Euh, lépp luy lépp luy sàmm ak di di aar jigéenu Sénégal rek euh, dañ ci nekk porté ko pour que jigéenu Sénégal am firi am jàmm am wér-gu-yaram. d'accord boo ne daf waaw boo nee sénégalais rek mooy mbokk ndax Sénégal ñu ñëpp ay mbokk lañ koo xamul am na koo xam ku ko xam. Eh, te lu dal benn sénégalais rek mel na ni sa sœur la dal ndax ñun amaana du mbokk deret mooy sunu mbokk ñun sénégalais ñoo suñuy mbokk ndax dañ lay bëgg di la déglu di la enjoy partout dans la monde te doo leen mës gis doo leen xam nga jaral leen lu nekk boo wootee ñu jël seen xaalis ñëw fay boo génnee lu bees ñu jënd ko kon ñooñ ñooy say mbokk man sénégalais ñooy sama mbokk jigéen ñi ñooy samay mbokk ku mu dal rek xamal ni sama mbokk nga ku mu dal man la dal Mm-hmm. alors euh, mën nañu xam ndax sa combat état daf ci jàpp quand parce que ñu bëri dañuy gis que euh, lu mel loolu su amee dañuy wax que état bi daf si jàpp wala ministre de la santé daf si jàpp est que ñoom dañuy jàpp ci combat bi. waaw euh, événement bi du sama événement personnel boo xamante ni man maa ko engagé wu porté ko mm-hmm. dama ko bokk ay nit muy waa Bamu Vision ñoom benn structure bu nekk Italie la mais base bi Grand Dakar la nekk ay doomu Grand Dakar lañ mm-hmm. nekk ci diaspora bi dafa liggéey liggéey bu am solo. d'ailleurs tournée européenne yu bëri may def ñoom ñoo may jox ay date Europe saa yi ma demee Europe ñoom ñoo tëgg moo tax ñu tëgg événement bi ñoom seete nañ euh, waa ministère de la santé dem nañ ci ministère yu bëri waxtaan ak ñoom ci événement bi man yàlla boole na ma ak ay kilifa yoo xamante ne ñu ngi ci biir état bi ñu am ay relation yu rafet ak ñu nekkul sax ci état ba ma leen seetee waxtaan nag ñoom ci événement bi jox nañ ba ci seen xalaat jox ma ci seen conseil ni ma dinañ jàpp ci événement bi ñoom ñëpp ma leen di woo pour ñu ñëw jàpp ci ndax ñun wutuñu ci dara lépp lu ñu am rek duñ ko bëgg a jël bokk ko jigéenu Sénégal. alors bi est xam nga euh, man moom man su si apolitique man état opposition lépp laa yemale waaye fépp foo dem rek am naa fa ay nit am fa ay xarit muy ci biir état bi am naa fa ay mbokk am fa ay yaay ku ci mel ni madame le ministre de la femme Ndeye Saly Diop mu dëkk Grand Dakar yàgga def ci jigéenu Sénégal sama yaay la sama xarit la su te sunu diggante dafa jiitu sax sama juddu ndax moom ak sama yaay la woon ak sama papa ku ci mel ni su ma limee mën naa juum noonu mu amee ci état bi noonu la amee ci opposition bi noonu la amee feneen ak feneen ndax ñun ay artistes lañ ñun dañoo ouvert ñëpp a xaj ci ñun ñëpp lañ amal relation yu naa si ñëpp lañ sekkal jàmm muy état muy opposition ñoom ñëpp man la ñuy war ndax ñafal ñafal la ñuy doxandoo ñoom ñëpp. Hmm. kon boog ñoom ñoom ñoom ñoo ko fa am. alors nga ñafal ñafal bu ñu waxee ñafal maintenant mu ngi dugg maanaam ci contenu événement bi xam ne moo nar a am euh, lan la ñu ko mën a xaar dëgg-dëgg à part lu bokkul ak ak soirée yi nga xam ne nii mu ngay tëgg. waaw man de yaakaar naa ne ku yàgg a ñëw ci sama événement boo xamante ni événement de phare la boo fa ñëwee di nga gis spectacle di nga gis son di nga gis lumière ndax loolu depuis sama début la bu hmm. leen fàtte def naa grand théâtre man mosumaa jaar Sorano sama premier événement bu mag bi mu njëkk a def grand théâtre la ba ma ko publier nii damay dem grand théâtre ñëpp dañ maa xeeb mais li mbër boobu naan man boo ma gisee si dayo mën nga maa xeeb waaye su ma dongalee rek ba taxaw nga xam ni waaw mbër maa ngi nii noonu la demee man euh, du ma dem dem rek taxaw way damay ñëw indi leen spectacle boo xamante ni mosuñu koo gis ci benn artiste son et lumière waye leen lu neex fu ne di neex fépp di neex ñi jaar nii ñi jaar rendez-vous le 28 à ne pas manquer di ci woo Sénégalais yëpp incha allah. alors Tarba so euh, événement bi da nga ko euh, annoncé wërsëg. donc comment l'idée est venue d'abord nga génnee single boobu noonu tuddee ko bokk wërsëg mu def benn siège entre euh, AO ak ñaareel en plus gis nañ ci benn femme boo xamante ni célébrité la. avant clip bi ñu gis benn affice boo xamante ne dañ waxoon que ni mariage entre vous deux loolu aussi naka nga ko dundee. am nga nongolo ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm xaari ko àjjana ci barke yonent bi doon wax way waxtaan bu ñu suukar la man su may way damay waxtaan ndax man kenn du ma bindal way ndax boo ma bindalee way jox ma ko duma ko mën man li may dund di ko gis loolu laay way mu neex bokk wërsëg Euh, inspiration bi mi ngi ñëwee ci sama benn mariage benn mariage bu ma doon tëgg sama cousine doomu alaaji mbàkk yu fay ma leen di nuyu sama famille de passage fa la inspiration bi jógee may way sama benn sang sama doomu nijaay numbe chéri Pablo nan ko numbe xëy na siin fanaani ndaat man tey ma dem ba ndaat seeti papalo ndax géwél ya ca ndaat ak gér ya ca ndaate ko ci woo de mi ngi naan la jéeri ngoone maalo be sàmba ku lim ni ci sengi ndaat jéeri ngoone mbay loolu génn ma woy ko inspiré ko noonu ci mariage bi rek ñëpp bugg ko ku ne di ma woo mais Tarba lii il faut nga génne ko il faut nga génne ko il faut nga génne ko pour ma nag ma génne ko noon noonu rek day vaste il faut nga utal ko tem utal ko yoon ma ni pourquoi pas kumpa iri bi ci mariage la jógee te boo nee mariage da nga naan jabar boo nee jabar ni aawa ni ñaareel pourquoi pas ma woo ci aaw ak ñaareel yi ma xalaat ci bind ci benn affaire bu nice tuddee ko aaw yeeg ñaareel yi bokk wërsëg ndax wujudu noonu bokk wërsëg la liggéey ko liggéey bu rafet ànd ceeg samay staff ak samay musicien ñu enregistré ko clip ko génne ko Sénégal yëpp bëgg ko accueillir ko ak accueil bu rafet di ko aimer di ko partage di ci enjoy loolu idée idée bokk wërsëg foofu la jógee dama doon way live rek di ko live mu naayef nit ñi bëgg ko ma defar ko génne ko avant euh, sortie clip bi ñu ne mariage entre vous deux ñu gis ñaareel affaire bi jur coow loolu bi mu génnee avant après avant clip bi bi clip bi génnee ban réaction euh, la sa ay proche am ak yow aussi ban réaction nga njëkk am bi nga gisee affiche bi ci réseaux sociaux yi waaw loolu nekkoon na sax lu ma neexul parce que du du bad buzz parce que man ku xam Tarba Mbaye xam ni affaire détail yooyu noonu mosu ci nekk man liggéey liggéey conserver sama bopp jàpp sama ñàmbur la ma ñëpp xamee man affaire u buzz yooyu nekkuma ci parce que sama xel nekkul foofu man maa ngi ci beneen maa ngi ci leneen lu dul ay bat buzz ak affaire yooyu loolu fuite la dafa amoon ñu ñëwoon ci tournage bi ñuy tourner ñu jël ay vidéo tournage bi passé ci lendemain bi ñu commencé dugal ay vidéo si TikTok vidéo yi commencé jël forme commencé jur coow xam nga ñi fa nekkoon nag gis ni vidéo yi ñi ngi ñi ngi am coow ci ci internet bi ñoo fa nekkoon ñëpp ku ne la nga filmer nga dugal ko mu nekk lu ma nakari parce que man surprise la ma ñëpp a xamee damaa bëgg lu may liggéey ma denc ko def ci code liggéey ko ba mu normal ma jël ko jox ko sénégalais yi mais peut-être tamit projet buy ñëw rek ak yoonam peut-être loolu Mor sa bokk wërsëg bi loolu moo nekkoon yoonam te tamit du lu yàgg na ci bis ma ciy remercier soxna botoor def na ci liggéey bu rafet def na ko ak xol aussi moom sama jigéen la sama xarit la boobu amaana soxna Bator boobu sax nekkagul soxna Bator bi waaw ñu am ay relation yu nice ma proposé ko projet bi tegal ko morso bi mu bëgg morso bi ni ma lii dama ci vidéo laaju ma ci dara def ay sañseem xam nga moom dafa garaaw ñëw yàq vidéo bi ba mu yàqu maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di nuyu aussi Baye Modou Kane ma sataak ma seer ndaak téyeram boobu nga xamante ni moo ñaw yëre yi ba mu rafet jox ñu ko pour vidéo bi. alors wax nga sa biir nee nga ay file yi nga xam ne nii moom moo jot si tournage vidéo boobule est-ce que loolu du taxaw jàngat Tarba Mbaye entourage bi nga xam ne nii moom moo nekk si wetam kon. àdduna lépp weexul tàll waaye lépp ñuulul kuk y a des hauts et des bas bu rafetee leçon la pour mu gën a rafet bu ñaawee jàngal la pour nga defar ko mu rafet bu bu dara amee mu nekk loo xamante ni erreur la erreur boobu da jàngal. fii ba ba may bàyyi way dootuma tourner clip clip nit gis ko te clip bi génnatul ndax ndax lii jàngal na ma su may tourne su ma amatee tournage dinaa ci jël samay mesure ut ñaari ponkal yu magum jëmm ñu ñëw taxaw ku fa téléphone ñu ñu téye ko leçon bi leçon bi mokk na. c'est-à-dire <laughs> kon dootoo dootoo defit affaire bad buzz parce que dañu gis ne la plupart gars yi bu ñu ko après son bi dangay gis ne son bi day am benn euh, maanaam nombre de vues yoo xam ne yu bari bari la comme ça veut dire que bokkoo si ñooñu ak ñuy def. waaw xam artiste bu nekk dafa am style artiste bu nekk dafa am couleur man sama couleur du ay bat buzz sama couleur du ay wax man job lu bari wax tuuti laa man li may def nii sax miinuñu ko bu baax ci man tant que aw ma événement du ma def communication parce que soxloo ma di wër di wax du gauche à droite man liggéey laa xam jaamu yàlla seen bégal Sénégalais di bégtee bégale ay bat buzz yooyu ma nekk nekkuma foofu man rek buzz laa ndax Baye Fall laa te Baye Fall mooy buzz maa ko Tarba ki sama jabar. lan moo tax choix bi waaw ah, parce que li ma wax ci wayu yëpp moom moo nekk ci moom da yàgg a baax te doon ko tey bëri kersa lool te maandu lool sama yaay gërëm na la sama baay sant na la li tax ma jël la teg la ci kaw yaa ma jural sama taaw aawa buuru këram kan laa koy kilibal keneen ku dul moom. Mm. mu sañ sa ba rafet ma jàkkaarloo moom di ko way tamit yàlla dëgg la bëgg. Mm-hmm. ce que est-ce que nekkul peut Tarba Mbaye peut-être day waaj wut ñaareel moo tax mën wërsëg mën naa ne dama doon zoose xool bu nooyee ma taq te daa mel ni xaw naa nooy nag tuuti lu ne mën naa xew d'accord alors nga jël sa soxna euh, def ko mu nekk ci clip bi joué le rôle Awa quand même euh, mën nañoo wax ni bëriwul artistes yu nga xamante ni euh, ñoom ñu ngi koy def lan nga ci jublu dafa am loo bëgg a jàngale wala lan nga ci jublu man damaa nekk artiste boo xamante ni du def lu artiste yi di def ah déedéet man lu ma def rek man maay doon ku koy def fa artiste yi jaar du ma fa jaar dama leen di seetaan ñoom ñëpp ñu def la ñuy def jaar gauche ma jàdd duraat ñu juuyu leen comme que am bëriwul artiste yu koy def looloo tax ma def ko loo xalaat ni bëriwul artiste yu koy def rek xaar ko ci man mais loo gis artiste yëpp di ko def xamal ni du ma ko def hmm? mais maa la kenn du ko wax dañ koy jëf maa leen dàq woy moom amul amul amul ku ne ku artiste bu neex taxawal nga taxaw ni ma dàq woy loolu yow la mais ku mën a ku mënul nit ñi xam nañ ko en tout cas daal ñu ngi liggéey ak sunu ngor ak sunu jom te it yaakaar naa ni géew gi ma nekk dama ko sekk ak samay nawle te amaana nekkuma ci ndaare loolu rek moom solo te ñëpp respecté nañ ma ñëpp jox na ma xam ne jàmbaar la après li des yëpp amul sens bi ngay porté surtout ci wàllu jigéen ñi ñu gis benn influenceur bu def vidéo ne yéen da ngeen ko woo fay ko pour mu couvrir événement bi woowu leen ci benn site internet ginnaaw bi vidéo bu jàllee génn gisuñu leen yéen ngeen génn demanti mu mel ni da ngeen ci ànd ak moom. loolu de maa ngi koy doog a dégg tey barke Cheikh Ibrahima Fall Lamb wóor na sëñ Touba ndax man euh, dafa am loo xamante ni erreur la te tamit du lu baax ci artiste mooy man je suis pas trop réseaux sociaux man dama yor beneen jab boo xamante ni amaana loolu erreur la ci artiste parce que tamit ñun ak yéen ñun munuñoo dem sans yéen waaye yéen mënoo leen dem saa ñun ñun lépp lu ñu def yéen koy siiwal ba nit ñi jot ci kon tey bu ñu taxawee naan ay benn influenceur ak benn kii Tarba Mbaye wowul presse bi loolu wax bu yàqu la ndax seen lof boo boo wootee Sorano nit ñëpp ñëw nga toj fa presse bi génnewuñ ko kan nga koy seraan loolu noonu du wax bu yenu maanaa tout la presse sénégalaise est invitée incha allah dem samedi ñëw leen ma ma yëngal ko toj ko ba mu rajaxoo ngeen xam ne lépp dëgg la waaw <laughs> ah. mais lekkite kase naxuti bay ku fi def lu bon kenn du la seetaan artiste yaa ngay yaa ngay toj mais kan mooy def lu bon fii nga am ay nawle ku ne booy taxaw garaaw boo génnee lii ñu génne lu lu ko gën a neex di nga fi nekk naan ku fi def lu bon yaa ko fa am de booy yëpp lu nice lañuy def mais li may def dafa gën a nice li ñuy def rek loolu la rek mais ci lépp maa mën maa bu doole. waaw man moom li may wax chaque jour rek man dama nekk artiste gox. muy Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie HLM waagu ñaay Rue 10 Sicap Liberté Fann Colobane Gueule Tapée ak li ko wër Ndakaaru man maay waykatu Ndakaaru man boy town laa ci digg ñànk tang bi laa dëkk su ma wootee boo yëpp dañuy takku ba dëgër yaay booy nand tey ñëpp a ngi ci biir ndax man bi may wootee di am mobilisation boo xamante ne day day yéem ñu bëri boobu am amaguma sax ay single man avant ma ay single wala may génn ci écran ñu may ràññee laay joué ay soirée ci ay salles yoo xamante ne ay huit cent personnes mille personnes lay def di ko def guichet fermé kon loolu lu ñu miin la kon boog ñi ngi woo ñëpp waa Ndakaaru waa banlieue aussi waa Grand Dakar teel a ñëw dalal Sénégalais yi fay teew yëpp a partir de 19 heures parce que concert bi day commencé 20 heures ndax Sorano la zéro heure dafay jeex ñi ngi woo Sénégalais yëpp ku ñëw ñëwaloo ma jigéen nga ñëwal ndax li ñuy def du sunu mbiru bopp dañ ko def pour jigéenu Sénégal ñu ngi woo ñu ngi ci woo ñëpp allah samedi. alors peut-être Tarba moins boo nee artiste social te li ma woote ñoom ñëpp la concerné Wally suma frère la. musuma def lu mu lu mu ñëwul événement yu mag yi ma mës a def yëpp day ñëw te du ma ko ko wax dangay ngay jékki-jékki rek gis ko fa bu ma waxee ma ne ma man xaaruma nga may woo maa ngi ko ci woo di ci woo artiste Sénégal yëpp du ma lim kenn ndax boo limee rek doo matal ku ci déggul turam day foog ni bokk ci te ñëpp ci lañ bokk di ci woo sama mag Pape Diouf nga xamante ni sunu grand la sunu référence la sunu lépp la defar yoon bi ba mu ba mu rafet di ci woo tous les artistes nañ ñëw ñu partager scène bi ñu bégal Sénégalais yi incha allah samedi le 28 octobre. waaw maa ngi lay bégee bu baax a baax. lan lañ nar a xaar si li nga culture eh, dafa ah, man rek maay culture man moom jarul ma lay wax sama identité man boo ma xoolee rek xam ni Tarba mbaay mii artiste la culture la ndax man moom culture dafa maa ñor Sénégal daf maa ñor culture sénégalaise daf maa ñor dama ko bëgg sama biir xool man ba bëri na sax ah, man li may sol sax yëre olof moom li may sol yëre tubaab waaw kon bokk ku fa ñëw di nga gis culture ndax boo nee Sorano Sorano yàgg naa culture dafa nekkoon salle boo xam ne dama yàgg am rêve pour jouer fa te mosuma fa jouer boo xoolee Sorano mooy essayage ci artiste balaa nga dem ci yenn salle fa ngay jiitoo mais man dama tëb rek sama premier concert ma dem Grand Théâtre ma yàgg am envie jouer Sorano ndax dama doon toog sax guddi su seddaan seetaan Youssou Ndour ak Ndiaga Mbaye sama télé damay seetaan ñu def ay duo yu garaaw loolu digg Sorano la woon kon Sorano yàgg na ak kon ndaanaan bu nekk war nga fa jaar marqué fa sa empreinte mu bokk ci sa biographe kon boog ñu ngi fay jox ñu rendez-vous rek incha allah. mais lii xew suba de yàlla rek ko xam man ay aw may problème mu fiasco de man ñetti ni sabu ñëwee ma way man ay woy laa bëgg man sama bopp laay woyal avant nit ñi te euh, ay fiasco fees na feesul man gëwma loolu déedéet man bokk ma ci artistes yoo xamante ni foofu la ñuy doxee ndax it mën ngaa ñëw ci événement àdduna bi yëpp ñëw toog di la seetaan ñëpp ñëw toog di la déglu te doo jox contenu boo xamante ni jar ñi fa ñëwoon euh, liñ doon wut si jar na ko lépp solo mooy nga liggéey ak sa équipe nga répété sa répétition def sa communication woo sénégalais yi ñëw présenté leen contenu bu bu bu professionnel musique bu nice spectacle bu rafet loolu moo ëpp solo li ci des si lépp ay détails la te incha allah ku fa ñëw di nga boo xoolee di nga gis boo dégloo di nga dégg ci kàttanu yàlla à ne pas di ci woo ñëpp. waaw euh, Youssou Ndour musique am dafa trop sénégalaise te ñu ngi koy consommer sur le plan international tubaab boo ko tegalee mbalax Youssou Ndour da koy way début ba fin ça dépend ci ni nga koy jaayee ñu mun nañu way ci n'importe quel registre amaana euh, man duma wax sama bopp aw ma habitude di wax ni man lii laay def ak nii laa mel loolu moo tax lu bëri duñ ko xam ci man man damay bëgg def li may def rek ñu ñu li ma war a li ma war a wax ma des ko ñu gis ko ñu ngi liggéey ci n'importe quel registre ci musique na ma Sénégalais yëpp xaar ci n'importe quel style ci Tarba Mbaye pour bientôt incha allah ndax ñu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax. Tarba sama bi xam nañ initiative mooy sargal bi ñu nekk mooy octobre 12 est que jàpp nañ ne année bii lay doon <clears throat> wala da ngay commencer nekk ambassadeur chaque ci période Euh, laaj bu ma neex la nag ndax événement bu ma neexee nii ba ma commencé suma carrière ba léegi maa ngi koy doog am ndax concept bi la ku ma waxtaanal ci concept bi rek euh, da nga naan ma tarba li ma waxoon sànq yàgg nga ñoo indil mais lu ñu indil nekk na lu ñu gënal ndax sénégalais dafa bëri yërmande sénégalais dafa baax sénégalais dafa social te euh, octobre rose nekk na loo xamante ni mu ngi ci biir xolu sénégalais yëpp. kon ñaan naa yàlla ren mooy première édition bi chaque année événement bi chaque année man damay def benn événement boo xamante ne maa koy defar sama bopp à partir de maintenant incha allah octobre rose lay doon chaque octobre dinaa def événement bu mag def ko octobre rose rendre ci hommage képp kuy jigéen. alors Tarba fii ñu ñëw mooy Tarba ñu euh, xàmmee woon la euh, nga doon liggéey ak euh, label boobu di doomu Jolof. Mm-hmm. ñu bëggoon a xam tey parce que liggéey nga ak ñoom benn album boo xam ne euh, sénégalais ñu ko doon ko sénégalais bëggoon nañ ko lan moo war sa tàkkali ko ak doomu Jolof waaw maa ngi leen di nuyu de passage Ibou Thiombane nga xam ne moo nekkoon producteur bi ak ay frère am yu di liggéey ñoom jaaf Thier ah su ma limee rek damay juum euh, ñu nekk ay nit yu baax nekk ñoo xamante ni contribuer nañu lu bari bari ci suma carrière def nañ lu bari bari ci suma carrière yàlla dafa dogal ma amoon ñoom benn contrat contrat boo xamante ne ñett at la woon ñu ne bis bi lay tàmbali bis bi lay jeex ma liggéey ak ñoom ba bis bi jeex ma préféré bañ a renouveler contrat bi nekk ci sama yëfi bopp jotewu ma ak ñoom lu toll ne tarfatul ay ni samay nit lañ samay xarit lañ ay nit yu baax lañ jàppale ma ba àdduna bi yëpp gën maa ràññee loolu rek moo waral sama séparation yi ñoo ñoom sama contrat ak ñoom moo jeexoon. non musul am coow mu ñooñu musul ñoo am détail parce que euh, producteur boobu muy Ibou ku baax la kooku fi Sénégal yi nekk sax ci ci wàllu showbiz moom nekkul foofu moom ay coow ay détail moom musuma ko xam ci loolu musuma tooñ musuma koo tooñ contrat bi ñu liyee woon mi ngi mel nga ni lundi lay commencé midi dimanche vingt lay jeex mu commencé lundi ñu liggéey mardi mercredi jeudi vendredi ba samedi ba dimanche vingt heures mu jeex ma jël sama yoonu bopp ñu nekk ci jàmm di déggante ci jàmm mu nekk ci yoonu boppam loolu rek la. alors ban tontu ngay indi tey ci ñi nga xamante ni dañuy wax que ni euh, da nga euh, label boobu di doomu Jolof parce que dañu jël alal bu bari dugal ko ci yow nga gañe ci te ñoom gañewuñu ci euh, wax nañu ne sax tey Ibou bu demee ba taw soo bi yow yaa ko waral parce que da leen war quand loolu kenn waxu ko loolu moom gisuma ko wax <laughs> waaw eh, damay tooñ rek xam nga nit ñi moom. ku ci nekk ak sa xalaat ñun dañoo ëppan kii day xool Tarba Mbaye di gis ci li ci moom lii kee xool Tarba Mbaye di gis ci moom lële ku nekk ak gis-gis bi ngay am ci man mais ñun euh, du ñu war suñu nawle te képp ku ñu sëkkal jàmm sëkkal yow wóolëre doo dox mukk ñu jàkkaarloo yow sëgg du moom kase képp ku ñu sëkkal jàmm sëkkal yow teraanga am ak yow wóolëre du ñu jàkkaarloo ak yow mukk ba sëgg wala ñu gis la daw ndax ñaari góor ñooñu jur ñu judd ñetteel leen xamuñu loolu nekkuñu sax foofu duñu war kenn ku képp kenn ku ñu yàlla boole. am benn moment am benn recul mu ngi ci yeneen artistes yoo xam ne mu ngi jéem a lan moo tax tar ba di indi concurrence ci musique am man de musu musuma musuma fàttali ko fu ma indi concurrence sama diggante ak benn artiste ndax man ku ma jugoon bay concurrence ak yow doo am jàmm ndax dama pànk man <laughs> non galas yàlla tere galas du galas du sama concurrent galas sama nijaay la sama papa la sama grand la galas galas du sama morom galas bokkuñu génération maak moom yàlla dafa dogal nii euh, mënoo bokk ak nit ki li ngeen di def bokk fi ngeen dëkk te duñu ni diw ak diw loolu moom c'est automatique loolu c'est automatique par force la kenn mënu ci dara mais loolu publique bi la mais du man ak moom màggal c'est que ñu ay concurrence parce que galas dama commencé way ci kanamam yàgg dem ci ay soirée di ko seetaan boobu xalaatuma sax dinaa way ah yàgg koo awu kooku di nga dem ba taxaw di way naa da ngay concurrence ak moom man dama am ay man su ma doon concurrence al samay morom laay concurrence al mais pas ay galas. ak Sidy Diop surtout Sidy gis nañu bu mu kii di Wally Ballago Seck mu daal di génn ni ku kuy tontul kii di Wally Seck lan la woon maanaam da nga bëggoon bi wala pour jàppale woon la wala pour xeex Sidy Diop ah, man nee naa la du ma ay buzz. kon ku xeex woon. xeex kan. ak Sidy Diop parce que moom waaye la classe mais man lan laay xeex ak ay Sidy Diop man tontu ma kenn man du ma tontukat. man dégg da ngay déglu rek. man nekkuma fi pour tontul kenn nekkuma fi pour xeex xeexu kenn lépp loo gis ma def ko man maa ko def ak sama propre gré lu ma sentir la te lu ma su ma ko sentiraatee suba dama koy defaat mais man kenn du ma digal wala nga may def loo lu ma def man la neex. ah xiir gi dalay dal ak ñafal ñafal ba léegi jógewu fi de. man li ngeen di wax nii sax xaw ma ko eh, loolu kañ la fi ah. laa ilaaha illallaah loolu ban année la woon loolu. ah. 2022 la. mais 2022 ba biir doo 2024 loolu yàgg na de. man. waaw gëj naa def sortie parce que tamit aw ma lu ma wax. yaa war a wax yaa nu saf bu mu la tax wax loo xamul man su ma demee ba am lu ma war a wax am lu ma war a yëgle dinaa def sorti ndax dëkk bi da ngay wax lii ñu wëlbati say wax nga juum wala bu ku wax bu yàggee nga juum yàlla rek wax wax wax yombul te yàlla rek a dul juum damay bañ a juum rek moo tax ma gëj di wax. sama diggante ak El ni mu demewoon demeewul noonu mais mënatul demee noonu parce que. temps bi ñu amoon maa ngi moom amatuñ ko El dafa am jabar am doom di daw dépense man dama am jabar am doom di daw dépense bokkul la ñu nekkoon célibataire doom jooyul jabar laajul depanse fu na ñu tëll tëll fa guddi bu vingt heures jotee ñu wër ba fajar loolu amatuñ ko El Hadj dëkkul sax Medina léegi mi ngi këram ak jabaram ah di gérer ménage am temps bi ñu doon am amatuñ ko léegi nekkatuñu xale ay mag lañu loolu rek mais mag El Hadj xamante nañu sekk nañ lu bëri. yàgg nañ ànd sekk nag ma lu mu sekkul ak artiste xamalante nañ loo xamante ne du ku nekk ko xamal kon El sama diggante ak moom yooyu noonu mënu ci am jot moo ama jot moo amatul rek chaque jour ma déggoo nga naan kat ma lay loolu. Ah. waaw conseil parce que temps yii gis euh, ñu xaw a euh, maanaam fay bi si bokk ñu bëri ne maintenant bu mu bàyyi la daal di génn daal di dem feneen ah? dégg ma bëri mu toll nii carrière xaw a wàcc parce que fu mu toll nii dafa bàyyi Medina bi nga xam ne fa la nekkoon wax nga xoolee sa biir wax dëkkatul Medina dafa dëkk bokk na si li nga xam ne nii xaw na suuf carrière am non dëkkatul Medina dafa dëkk feneen loolu loolu loolu loolu loolu ça ça veut rien dire que El Hadj El Hadj El Hadj luy dëkkatul Medina El Hadj mais carrière fu mu toll wàññi na bu baax. Youssou Ndour fu mu dëkk. Youssou Ndour Medina la dëkk est-ce Medina lay yeewoo. mais si yu mais dama la Youssou Ndour Medina la dëkk est-ce Medina lay yeewoo man Grand Dakar laa dëkk est-ce Grand Dakar laa yeewoo mais Grand Dakar laa dëkk loolu ça ça n'a rien à voir gis nga ñun tàmbaleeguñu bay pare El Hadj Keita tàmbaleegul carrière ba carrière di wàcc wala carrière am di yéeg carrière li mu war a def ci musique bu dee cinq la un bi sax defagoo ko. ba carrière di yéeg wala carrière am di wàcc muy man muy ñi ma bokkal génération yëpp ñun ñëpp ku ci nekk lii sa objectif ci musique bu dee cent benn sax amagoo ko ñun tollooguñu fu ñuy yéegee wala fu ñuy wàcce ci constance lañ nekk ak ci liggéey El Hadj mi ngi liggéey ñu koy bëgg ñu ngi koy bëgg ah ñu koy jàppale ñu ngi koy jàppale mi ngi gérer musique am nicement El Hadj ndaanaan la El Hadj kenn dàqawee Sénégal amul benn booy bu ko dàqawee. Euh, ngir tàggatoo ci question bu mujj bi Tarba lan ngay tontu tey ñi nga xam ne dañuy wax que ni euh, Tarba maanaam dafa gaaw a xeex Tarba dafa bëri histoire en plus artistes yëpp moo ci gën a yëg boppam lan ngay tontu ci loolu ngir Tarba. man ku ma xeexal xanaa danga may rey man aw ma doole ah. man Ouzin Keita man man dinaa xeex man dinaa du ma dóor Ouzin rek Ouzin Keita jàmm non yow Ouzin Keita gën a neex ci àdduna Ouzin Keita Ouzin Keita benn artiste attanu ko Ouzin mooy sa mooy sunu star Ouzin kenn du ko laal. kon tax nga dóor ko. dóor man dóor naa la kuy dóoree man dama am doole bi dóore man aw ma doole de aw ma doole aw ma bu mag laa man xeexuma kenn jàmm laa wa teg ambiance. may xolal nee nañu artiste sa bopp mooy. lan. toppatuñ waa benn tali ñaari tali du ñëw ci événement wu kan. waaw yow xanaa yow la moo la dal du ñu ñëw événement wu kan saa yu man damay joué chaque semaine kon tel artistes yi nekk Sénégal kan moo ciy joué boîte yi dem ñu ubbi sa boîte te doo am ay nit. waaw mooy wax grande Dakar ñaari tali du ñëw sa événement yi saa waay yow amoo information de. yëg sa bopp mooy. Uh-huh. mooy lan. mooy quand même loolu du yëg sa bopp wala pour wala pour interview demoo interview loolu du yëg sa bopp de loolu xam nga lan la xam loolu lan la loolu ñàkk sa bopp la ku miin sa xuloo yab la man nekkuma di wax de gauche à droite fu ma war a waxee laay waxee su ma bëgg a fu ma bëgg a waxee laay waxee période bu ma bëgg waxee laay waxee gis nga man wàllu yëg sa bopp man nekkuma foofu parce que man grande Dakar laa dëkk falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee te quartier boobu noonu xaw ma na nga waaliyaan sa fa mais boo fa juddoo yaroo fa màggee fa dafa am ñaar yoo xamante ne du nekk ci yow benn muy rëy ñaar muy ragal parce que solidarité lañ xam génn sama kër dugub kër gi ma jàkkaarloo añ fa sangu fa génn dem sama yoon lañ xam kon boog esprit boobu boo ko yoree ay rëy ak affaire yooyu mënu nekk ci yow maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 28 lu duf ci nag bi xajul ci cin bi samedi